sëriñ Basiiru mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di tuuba xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bachir Mbàkke nekk ci Touba Daaru Minam ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28 gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew ay jumtuwaay yu am qualité dëppoo ak bépp norm bu boulangerie di laaj li ci gën a yéeme cet gu mat sëkk lañu àndal ci seen liggéey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 fanweeri fan yi ma fekk si laa koy woore wenn mu bu laay nekk doole gi bari tëcc rek mbaa ma tëcc ba ngeen moom asalaamaaleykum ah, ginnaaw bu leen nuyoo ziar leen ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax euh, di leen xamal ni maanaam li tax euh, tey sëñ Sàmb mi woote jitaay bi mooy wàccaayu laylatul xadar nga xamante ni sëñ Sàmb mi moo ma woowoon ni ma naa ko woowal nit ñi ci bisub laylatul xadar bi mu saafoonteeg nit ñi xamal leen lan mooy illay yee laylatul xadar ndax bisub laylatul xadar bis la bu màgg boo xamante ni euh, maanaam ba tax Euh, seriñ Touba da ko doon dundal na mu ware doomam jii fi nekk tamit doon ko dundal muy soxna may ba ni fi jógee doomam ji sëñ Modou Mahfous di ko dundal ba ñëpp xam ni dañ ko dundal ba tax sëñ Samba mii woo ma ni ma ñaa ko wool sëñ Matar mii ak sëñ Ons mii ak ba ñoom sëñ Bàcc ak ñoom jigéen ñi ñëpp ñu dundal bis bi fii kon bisimilah kon dañuy jël kàddu gi rek jox ko sëñ sàmba mu leeral leen lan mooy euh, illay laylatul xadr dëgg-dëgg. yëpp man maa leen wool woon ci guddig laylatul xadr bu tedd gi. bu nag euh, def nu ci lu gën jaamu yàlla mooy di ko dundal di ko sikkar jàng xasaay di sëriñ Tuubaa yi di jàng alxuraan yi suñu borom waaw di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax guddi gi kat dafa nekk guddi goo xam si ni moo gën junniy weer gën junniy guddi mm-hmm. moo tax suñu borom wàcc ko ci alxuraan inaa ansalnaahu fii laylatul xadri wa maa adraaka maa laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi shahri tanassalul malaayikatu wa ruuhu fiihaa bismi rabbi min kulli amrin salaamun hiya hattaa matla'il fajri bañ ne ko ba ne su malaaka yi sax dañuy wàcc ba juróom-ñaareelu asamaan di xool jëfi doomu aadama yi lépp lu ci suñ lu ci waay ñaan suñ borom dina ko nangu te dina ndax mooy guddi gën ci guddi moo taxoon ma woo leen ñu def ci ay sikar def ci ay astaxfirullah jàng ci xasaay seen tubaay jàng ci alquran bi bu ko defee suñu borom yokkuñu ca gënu suñuy bàkkaat boole ci ñi xaaj jëm déwén seen texeel moo tax daal moo man dajale woo leen woo woo sëñ maxtaar nag ma ci defal waxtaan bu yaatu ci guddi boo dox a def bisimilah sëñ maxtaar rasulillahi ya musa mooy taaw mamado xayru naasi dem na xolal ba seydina muhammad génne duniya ababakar nga ànd sago waaye omar dafa dof ca saasa gàddu jaasim nga naan lam yamut xayrul bariya mustawa demul ku ko wax dina tàqale sa bopp ak sa baat seydina usmaan dafa lu ba mënta wax seydina aliyun tànkam yàlla bañ naa ci demoo ak rasuulaay mamadou xayru naa si dem na borom guddik laylatul xadar ndeysaan ah. mamadou dem na ñoo ngi nuyu ñëpp di rafetlu taxawaay bi ak teewaay bi di sant nag Serigne Samba bu baax ndax nii la ko defe woon ca Badar ja ndax moom amul benn bis boo xam ni bisu diine la boo xam ni dana dana ko bëgg a neenal kon jamono bu ne rek moom day dundaale du fàttewaale mboolem ki nga xam ni ñoo doon sàmm lislaam kon bi ñu jógee ci badar ja tamit li ñu dalaat mooy laylatul xadar bis bii nag di bis boo xam ni comme ni ñu ko waxee ci alxuraan benn bis boo xam ni moo gën junni weer Serigne Sam wax na ko léegi ci njëlbeen bi laylatul xadar di bis boo xam ni ci la suñ borom da ciy def ay ngëneel wàcc ci malaayika yi ñuy wàcc ci suuf di ñaanal nit ñi di saafonte ñoom di dend ak ñoom ba fajar ñu doog a delluwaat sëriñ Tuubaa wax ko daal ni yaa sëhra rabbin karimin fii ka jaada lana fii laylatul xadri mu ni yow mi nga xam ne yaay weeru tedd wi weeru weer tedd weeru koor ci yow la ci yow la amee benn bis boo xam ne mooy laylatul xadar ñu am ci ay ngëneel yoo xam ne kenn xamu nu mu kon loolu mooy laylatul xadar di bis bi nga xam ni wecc na junni weer di bisu ngëneel di bis boo xam ni dañ ko war a fanaanee jaamu yàlla ndax bis boo xam ne xamoo dina la fekkaat wala déet kon luñ man waajal ci jaamu ko yàlla rek def ko ci taxawal ko ci sikar tudd ci laa ilaha illallah bernde ci lépp luñ man rek ñu def ko ci jeexal sunu dund gépp ci laylatul xadar ndax jar na ko bu suñ borom muri woon kiiraay li nga xam ne mooy mooy moo dox suñu diggante xéewal yi ni am ci laylatu xadar saa bu ñu laylatu xadar weesoo tee da ngay gis ni nit ñi di jooy ba faatu ndax ndax ndax ndax yiw bi ni muy tol ak ak martaba bi waaye nag suñu borom subhaanahu wa dafa bëgg ay jaamam tax ba mu bindee addu euh, sawara bind alaxira bind euh, safaan ba la ko cay teqale ndax ñëpp la yemale wala xadd karam naa bànni aadama nit ñëpp la suñu borom yemal waaye nag am na ci ay mbindeefam yoo xam ne dane nag yaa ayyuhan naasu abudu rabbukum lasina da leen a beraat sant na ñëpp ñu jaamu ko waaye nag dafa am ñu beraat ni yaa ayyuhal lasina amanu waaw kutiba alayhim siyaamu googu mu wax nga xam ne da koo beral ay mbir la yoo xam ne da koo beral ay ñoñam ñooñu nag ñu xel ñoo ciy bokk ndax suñu borom mi ngi naan urul arba bi lay waxal yéen ñi nga xam ne boroomi xel ngeen kon xelu bokk na ci di xam bi nii di ko màggal di ko dundal ci sunna ak farata ndax bis la boo xam ne daal sëñ Samba bu ñu doon wax barke bi ak daraja ji du jeex sëriñ Touba it leeralaat na ko wax ci ay ngëneel yoo xam ne du jeex mukk mu mel ni woor gii ñi nga xam ne bis bi nga koor gi nga xam ne ci la ñu nekk boobu ba léegi di woor fukki fan yi njëkk yi ku ne xam na ni ak fukki fan yi digg bi di yërmande ak njéggal te ku ne xam ne njéggalu suñ borom moom la ñëpp di sàkku nit du dem àjjana mukk te amul njëgalu suñu borom kon li mat a sàkkuli mooy ngërëmul yàlla suñu borom te loolu la ñuy fasaale fii dañ koy fasaale fas yéene ko nga xam ne sëñ Samba moom dani bu jant bi wàcc la koy tàmbali ba bët set ndax moo ko taamu at mu jot mu woonu ñun ñëpp ñu ñëw ndogoo si fii waxtaane yonent bi waxtaane lislaam ndogu ba ngoon jot ñu daal di julli xéewlu gun pare kulniwaat nga xam ne fii moom mooy tàmbali bi rek nga xam ne kon sëñ Samba yow loolu amuñ ci sa fay ndax waxtu woo yëkkatee lu baax ni ñëw leen jàpp te ñun ñëpp bu ñu meebee suñu bopp lañ ko jëme ndax lu fi waay jëlee ci barke lu fi waay jëlee ci teyaaba ci sa bopp boo liggéey boo wutoo da nga xam lam lay jëriñ te dund gi nag amul solo ndax dund goo xam ni yaa ngi dund dem rek te buñ la mayoon téeméeri at tamit bis boo duggee ci bàmmeel fàtte ko bis buñ la mayoon téeméeri at wala nga dund junni at boo ko dundoon soo faatoo fàtte loo dundoon ci àdduna te fee ñuy tëdd di fa jëm tamit du jeex mukk tëddaay la boo xam ne danañ tëdd ba amutub àpp ndax temps moom fii la am ak espace ci àdduna rek la am waaye amut alaxira gën jëm kon nag bis boobu nu nga xam ne dañ ko war a waajal ñun ñëpp ndax lëg ñun ñëpp danañ wéet ak suñu borom te bis yu mel nii noonu lañ koy waxtaanee kon yaakaar naa ni li ca des mooy lañuy waajal waxtu wi rek bu ñu paree dellusiwaat ci waxtaan bi ak beneen anam xam ni su duñu mënuñoo fàtte suñu jàmbaar yi nga xam ni muy soxna jaxate ak euh, soxna Assa Touré mi nga xam ni ñoom waxtu ne dañuy ànd ak ñun ci bisu koor gi ba koor gi jeex ànd ak ñun tey ci laylatul xadar ci bis yu mel mënuñu leen a fàtte soxna Xadi Fall moom it mënuñoo wax kenn fàtte ndax moom wax dëgg yàlla Pastef la am jàmbaar lool déggal borom këram tey loolu lépp ci ngërëm la bokk waaw kon ak soxna sëñ Moustapha mi nga xam ne mooy borom diwaan bi ñu koy sant bu baax di ko gërëm. sëñ Madar waaw ah, te kaddu yi nag daanaka kaddu yi sant rek la dañuy sant bu baax di gërëm ndax lu mel ni kat mën naa ne jafe na ci koñ bi Kër Samba rek laa ko gisee te chaque année mu invité ñu di def ak ñun yu baax yi di ci woo sëñ Matar mii mu koy jàppale ci liggéey bi kon dañ la ci sant bu baax di la gërëm di sant bu baax suñu soxna yi ak sëñ bàcc mi ñu koy siyaar bu baax a baax ak sëñ Seck ñëpp rek siyaar nañ leen xanaa kay di santaat ah, soxna yu baax yoo xam ne nii mënuñu leen ñàkk tuuti ci bi mu ko mel ne soxna Asta ak soxna Fatou Jaxate ñooñu mën leen a ñàkk tudd ndax dañu jigéen ñu baax baax lool yiw ñëpp lu baax la leen xamee ñoomee dañ leen sant bu baax a baax di leen ñaanal suñu jàppale leen ba am euh, sëy bi nga xam ne ci la ñee suñu borom may leen njaboot gu barkeel te yàggal leen ak seen borom kër ndax ñu baax lañu kàddu yi dafa mëtoon a ñàkk rek may naa ko ci dugal maa ngi jéggi loolu baax a nag bu mel ni conférence bi neex na lool wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee rek suñ sàmb moom tarkal kal wax dëgg yàlla réccuwul lu ñu moom ci koñ waaye nag duñ ci fàtte tamit sëñ si la mi nga xamante ni daanaka lépp loo xamante ni bu conférence conférence bi commencé ba ni mu moo ñu koy taxawoo mu jëm ci wàllum ñam jëm ci wàllum toogukaay jëm ci wàllum jëli baas jëm ci wàllum lépp sëñ si Sylla mook sa sasoo mu nekk nit ku baax koo xamante ne fu sàmb mii taxaw rek taxaw na ca wet ga ci wàllum diine nga xam ne dara yi àdduna ñor ko léppam ci diine la ko teg ñu koy sant bu baax di ko ci ngeen ñaanal ko yéen ñëpp suñ borom yokk ko ba mu fa fi mu yéene yeggale suñu borom yeggale ko fa ci barke Sëñ Tuubaa Mbàkke koy sant bu baax a baax jërëjëf la la ilaha illallah muhammadu rasulillah la ilaha illallah la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 borom barrière or ba ca Madina yaa ñu goreel Sëriñ Tuuba Mbàkke sunu yaakaar tey borom lam yabdu mislul mustawa muhammaday siran wa fil baraya sammaday mbokk yi nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. xéewal feeñati na ci Touba Darou Minane. boulangerie pâtisserie Cheikh Mouhamadul Bassir Mbacke. nekk ci Touba Darou Minane. ci mbedd mi ubbi ko ci penku penc mi jëm 28. gérant ba di Serigne Khadim Rassoul Gueye. ñoo jëlee ay matériel yu am solo bitim réew. ay jumtuwaay yu am qualité dëppoo ak bépp norme bu boulangerie di laaj. li ci gën a yéeme. cet gu mat sëkk lañu àndal ci seen liggéey.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 ñu ngi ñaanal mboolem njabootu Serigne Touba ñu yàgg fi loolu ci ànd ak wér. Serigne Bassirou